lu ñuy toog fii rek du lu ñuy toog ku nekk naan maa mën ku nekk naan yow yaa mën déedéet xam naa am na loo xam ne buñ ko defoon moom réew mi def naa dina amal njëriñ mooy ñu woo ñëpp ñu am cër ni ñëw leen ku ci ne joxeel ultimatum ci virus bi man de loolu laa defe moo amal réew mi njëriñ waaye maa mën maa mën maa maa mën boo xam ni mënuloo protéger ñi la gëm ci virus bi. mënoo protéger sax ñi la gëm ci virus te bëgg leen protéger ëllëg yowmal xiyaam. te yowmal xiyaam gën a dangereux virus bi. ku la yaakaar àdduna. yaakaar la àllaaxira. war na mën a amee preuve fii de. preuve bi mooy. ah man de man man de personnellement. su may taalibe. ay su sama su ma doon taalibe boo xam ni. dama am sama wasila fii. dafa am wasila am bee ngi dund. ci jamono yi xam nga nu may def. damay dem ci moom. damay dem ci moom. ni ka yaay sama wasila de. yaay sama wasila de. àdduna yi yaa ngi fi. dafa am daal benn feebar mu am ci réew mi bu garaaw ñëpp ragal ko ma bëggoon nag comme yow laa yaakaar àdduna ak àllaaxira te àllaaxira gën a metti nga dimbali ma virus bii nga nga musal ma ci ba pare soo ma ci muccalee nag dinaa am confiance ni kon ëllëg daa ma muccal ma bàyyi ko ak sama bopp bis bu ma sojee rek. ma woo ko. ni sëriñ foo toll. soj naa di. xam naa bu yàggee de. ñu ni ma yow taalibe bu lakkale nga. fekk na dëgg la. yaqiin boo ko amee ci nit. xaqul yaqiin. sa lépp. war nga ko ciy mën a bàyyi xel lu lay dugg lu nekk it war na ko mën a bàyyi xel yow la ngay def rek mooy sababu shahada waaye ñaan ya la yàlla di musale wax dëgg su dee ci gannaawam nga topp war na mën a ñaanal boppam waaye war na la mën a ñaanal nag loolu ca début ba laa ko waxoon ma ni ñi gëm ñi gëm nit ñi ñëpp topp seen gannaaw fii nag la nit ñi soxloo fii la taalibe yi soxloo seen sëriñ nag na leen sëriñ ñaanal bu ñu wéree ñëpp wér sunu réew di senegal ñëpp ay taalibe lañ koo fi gis am na ku mu àndal bu allahuma kilifa yëpp doxee ñu ñaanal ñoom ñëpp ñu topp seen gannaaw dara dootul dal kenn ñëpp génn ñibbi kon nañu kon nañu xool allahuma yi bu baax nañu dóor kurus yi bu baax ndax nag médecin yi lañu mën ñoom ñi ngi koy def de ah, nelawuñu guddeeg bëccëg ñi ngi sonn guddi ak bëccëg li des nag mooy ñun ñi nu topp suñu gannaaw ñun ñu nu topp sunu gannaaw kon nañu fexe jàng allahuma yi ba ñooñu yàlla musal leen suñu ko defee daanu noppal suñu bopp noppal suñu njaboot noppal médecin yi